jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ndogu nañ ba noppi waaye ñu ngi fii ci xel Xelcom automobile ki ñu fi woo di Modou Baye faal Modou Baye faal nag kenn la koo xamante ne vraiment amateuru làmb la supporteru làmb la waaye dem na ba dagg licence tey ñëw ci làmb bi mu ñëwee ci làmb nag daf ñoo indil combat yoo xamante ne vraiment xale yi fi mu leen jëlee sax dafa jaaxal ñu bari ci wàllu làmb gis nañ ko ci ñeneen promoteurs yi bu njëkk ku ciy dugg ci làmb da nekk supporter wala nga nekk amateur dugg ci làmb ji jékki-jékki ba xam ni vraiment war naa mën a tëgg làmb nga tëgg làmb ñu koy féliciter bu baax mbokk yi fii ñu ñëw fekk ci ko fii lay nekk di fi am teraangam di fi dóor li nga xamante ni moo di waaram muy xel Khelcom automobile ñu koy jaajëfal bu baax gis ngeen xale yi toog ci ginnaaw ñoom ñëpp ku ci nekk dina ñëw yaatal digganteem ak adversaire ndax ñaari mbër yi ku ci nekk war naa mën a xam moroomam ñu waxtaan ci fair play ci yar ak teggin ku ci nekk mën a am loo yóbbaale sa kër ñu xam ne bu baax a baax ñuy bàyyi xel saa su ne bari na ñoo xamante ne dañu naan mbëru làmb du noom bari na ñoo xamante ne dañu naan mbëru làmb wéru te fekk ni alors que lu oto yu baax yi mbëru làmb yee koy dawal soxna yu rafet yi macha allah mbëru làmb yee leen di takk kon nag ñu leen di jaajëfal bu baax a baax dañuy woo xale yu njëkk yi kenn ki di nga mooy caatu Mbombay moom moo war a laaleeg Milkzo ñoom ñaar xam naa ne ku ci nekk day ñëw fii rek caatu Mbombay ñëw taxawee nii Milkzo ñëw taxawee nii ñoom ñaar ñu yaatalante ndax ku ci nekk mu ngi doon xaar moroomam ñoom ñaar nag xaw ma kan moo ci jiitu kan moo jiitu fii. maa ko jiitu. lu tax nga njëkk. waaw fonk rek ñoom 18h moroom ñoom kii jiitu la. waaw xëy na damaa gën damaa ëpp temps rek man damaa ko guddee wàcc. Hmm. waaw. ay ca kon dañ lay bàyyi nga nuyu mbokk ñi lay seetaan internet bi sa adversaire combat bi lan moo tax nga jël ko lan moo la ci dugal dañ la ko proposé yaa ko proposé sa bopp wala lan la maa ngi lay nuyu bu baax. Ah, maa lay fay xam nga nuyu gars yi teew yëpp xam nga nuyu sama gaan ma àndal Ama Malika di nuyu sama papa ñaaxara Ndiol di nuyu sama booy dawal ko sare di ma àndal xam nga waa waa marin ba xam nga di leen wax nag combat bi combat mu ngi àgg si dara quoi sama benn booy bu gaañu ak waa carrière ba ñoom ñëpp waaw di nuyu Mourou Ba Fall mii nuyu gars yi ak site internet xam nga ñu ne kii nag làmb boolewuñu sax mën ak moom kii non non làmb boolewuñu mën ak moom caatu mën làmb boolewuñu bokkuñ sax adversaire ñu bëreel damaa jóge jeex jàmm am blessure ñu joxe jeex jàmm par décision arbitre moo ma booleeg moom ak waxam ju bëri waaw waxam di wax nag lu ma tëkkoo ba ñëwee ma du jour làmb jaana taxaw wax ju bëri lan la wax non dafay avant combat bi taxaw dafa taxaw fu nekk bëgg combat bi taxaw ah. combat bi taxaw te yàlla dogal taxaw na incha allah rabi na taxaw dinaa ko duma dinaa ko daan boo ko jàmmoon ak moom parce que Serigne Saliou kii ku dul moom sax dama koy duma kii seen igri nekkul moom laa foor a bëreel salaamaaleykum maa ngi bëgg ñu ñett ñëpp Jean bi maanaam yàlla moom duul ma doon ñoom cadre ko moom Mbaye bi di nuyu waa bool bi yëpp nuyu sama dëkk boo mbay jaar ñëpp ñu amet te gaay bi maa leen nuyu ba xarit jaxar ñu bu baax a baax dégg nga li mu na yaa wër ci dëkk bi yëpp rajo yi di wax rek li ko yebee nag bu arbitre prix bi ñu ne la dóor wax fii daa yomb yi nii tiim la gars yi ngay wax dafa neex de. daa moom suñ tëjee du xeex du bëre. bu kii dama nga entraîné ji laa la entraîné bi di toggal bi laa entraîné la. état bi mu indi. ki daa entraîné. Oh. bu fekkee xam nga làmb nga xam non man kay xaw ma ko jàpp. nee la entraîné barke Serigne Sall ma ko am doole. barke Serigne Sall kii ma entraîné du ma sax entraîné amaa yaram ñoo bokkul quoi moom dafa caas yaram mu ah, yaram bi nay yaram bi dafa nay trop barke Serigne wala kii kii di mel ni ku xiiboon nii déedéet non non kii mel ni ku xiiboon barke Serigne na moytu ma yenn ko walaay ma ci bëgg ñëpp bëgg a yenn ko tuddal sa dañu mën a jël bu ñu ba vingt jours dañ ciy paree combat dañuy mel lu ñu tànk yi nekkul tànk sax billaay bu arbitre suulee ba nga jël samay tànk doodoo doodoo jël tànk mbër barke Serigne Saliou. parce yi seetaan tamit faaw ñu natt ñaari xale. bu mu jël samay tànk doodoo jël tànk sax man moom. Ah. barke yàlla kii bu arbitre ma prix bu ma ko téye. chaque jour mu ngi naan bokkuñu. bokkuñu man ak yow. gis nga nit li Bombardier waxoon rek mbër da nga koy valoriser. Hmm. boo ko daanee mu am valeur. mais nag moytu ma daan ko. soo waaw moom nan la wax waaw yàlla mooy may ndam dëgg la di ko ñaan ndam mais maanaam bokkuñ ay qualité mën moom kii ñi ma bëreel ñi ma bëreel bokkuñ sax ay adversaire moom ay xiibam rek la fi bëreel barke Serigne Saliou man ñi mu daan ñëpp nga ne ay ñi mu daan man mi daan ay tafaleer numéro 2 daan ay ay barbar ay bébé xarañ kii mënuma téye damaa gëm sama bopp barke Serigne Bamba damaa gëm sama bopp te xamu ko bu taxawee du yàgg barke Serigne Saliou te mini la ñu bëre man ak moom bu taxawee nag mm-hmm. barke Serigne Saliou te buñ jàppante moo maa ko bu doole ñaari yoo nee na dama caas bu jour ba bu suñu ko yéen ñi ñëpp yéen ñi caméra ñëpp na ngeen xool maag moom kan moom doole kob doole yàlla na la yàlla may ndam dama lay ëpp doole far force kob doole yàlla na la yàlla may ndam maag barki Serigne Saliou dama lay ëpp doole far Serigne Saliou laa gëm kon doo yóbbaale ndam man ak moom kob doole yàlla na doo yóbbu ndam bu baax bu suñu ko fa ci biir géej baax ñu ma mos a bëree yaakatul allah rabbi tey rek am na solo bu baax yéen ñaar ku ci nekk xanaa dañ lay bàyyi rek nga woo say mbokk vraiment joxe rendez-vous wax leen bis bi kañ la nan nga fas yéene ñëw jox ko moom it mu wax loolu ñu tàggoo waaw moom comme d'habitude rek di si woo sama gars yëpp xam nga di woo dem lañ loo hmm. maa ngi wax ak promoteur nee na carrément bi hmm. ko indil bi yi hmm. xam nga di si woo dem suñu maire bi suñu musal maire bi nga xam ne moo falu ñun ñoo doon ànd Adama Sarr nee na heure bi génnee moom tam dañ ko indil di wax promoteur lu mu gaaw si bi rek xam nga ndax laamu ji bëgg ñu si jaay benn bi ñu ko bëgg a maye bi yëpp waaw di bëgg nag sama doom day am Malika di bëgg ñoom Pape Demba suñu ma écrit amat ay ñoom DG aéroport bi Souleymane Ndiaye di wax Macky Sall xam nga na ko jàppale bu baax lu muy liggéey ñu ñëpp mu ñuy jàppale bu baax suñu làmb dañuy def lu ne barke Serigne Saliou di woo waa Malika montagne Mbëbës Buun yëmbal Kër Massar képp kuy mbër rek maa ngi si woo quoi di si woo suñu waa écrit yëpp écrit yi nekk Kër Massar ñëpp waa di woo gars yi ma ñëw jàppale kii nekkul sax moom incha allah rabbi dafa am fu ma jógee te incha allah dafa am fu ma jëm te nekkul yow nee naa ñaa bu ndaw bu teg seet bi Kër Moussa di déranger moo ma tax a jóg mais du yow. chaque jour lii waaw di di nuyuwaat rek sama waa dëkk waa Bool di nuyuwaat di nuyuwaat waa Bool bu baax a baax ah. di bëggee ñoom duul ma dër xam nga dañuy son ci man te defal ma leen dara xëy na booy bu ndaw laa seen waa mbombo gi mu dëkk ne ah. aw ma seen fay ah fukki ñaari foofu maa leen di bëggee bu baax a seen waa Medina gi ma jóge ah waa Rëbës aw ma seen fay bëggee mbay ah Zal ñoom Mor gaay maa leen di bëggee ñu woo ñëpp ñëpp ci combat bi ñu def nan daan def ah. ñëw duma jàpp daan day gaaw. dem ñibbi jaajëf caatu Mombaay jaajëf Milkzo. ay ca toog leen noonu ñu xool.